xam nga li jo di wax yu nekk wala ambassadeur naan ñu côté Aziz dafa côté lu bari avant mu gaañu mhm. te dama ne Aziz mu doon ooyee ay doomu ndey wala samay doom ñooñu ñoo ko trahir ñooñu baaxuñu ñooñu ñoo rey Aziz ba pare dellu jàlle ko am tey gis naa bari ñu ngi sympathise ak mère Ramata mais Ramata premier jour bu mu dugga ñun fii lañu ñu mu ne kaara def na am like years like quarante en Hollande mu gestu mu ne da daan feccal Yaya Jammeh te moom bu defee quarante ans Yaya Jammeh deful quarante ci pouvoir u ñu mhm. tegee loolu boor ma ñëw ci la la la sama sœur wax Freeman am na yenn wax yum fi wax dégluwu leen ko de xam nga ñu ne dégg-déggin dafa am te booy dégg dangay ngay boo teyee dinga nga dégg lu bari xëy na am na ñoo xam ne duñu doomu laakakat duñu comprendre mais Freeman wax na fi loo xam ne am góor yàlla mu ngi ko doon wax ne ko nga ay butéel loolu mënul ne ah kay ci xeetu njaago mun na ne ay butéel di génn ci sa yaram mais gis nga njaago ñu doy waar a ngi noonu xam nga lu tama koy wax man sama yaay ma njaago cent pour cent ndey njaago bàyyi njaago mm-hmm. gis nga boo tooñee nga dem ci ñoom yow yàqu nga yaxeet xam nga lu lay yàq parce que yow dangaa tooñ ba pare nga dem uti au secours ci ñoom nga uti ndimbal ci ñoom mais Ramata mu ngi ñëw fii di victimiser wu di jooy ñëpp a yërëm ko parce que jigéen la ba pare mag la mais gis nga li mu am limu mu li mu gis euh, sal salaam duggoon na fi mu wax ko gis nga mère Ramata li mu li mu aw loolu rek moo xàcc ci kawam. Mm-hmm. ngeen baal ma àq maa ngi jégalu mais li mu aw moo xàcc ci kawam. te man leen koy waatal man maa ko wax fii tey. su ma leen waxee ne deeyu Aziz Dabala bii yàgg nañ ko wax jo yàgg nga ko wax ma di la topp suma la weddi ci benn boor mm-hmm. yuuxu dina jóg fuñ ko foogeewul benn ñaar képp ku taxe ci dee bi dinga nga feeñ Sénégal boole ci Gambie parce que loo doo wax Sénégal teg bàyyi Gambie lépp loo xam ne am na senegal am na Gambie mais su ma la ne fa la Sénégal di joge baax ba faw ba pare ñu wàll Gambie mu baax ba faw wala Sénégal boo mm-hmm. comme ni ko Aida waxee rek ku Assis Sénégal day bon ba faw yokk Gambie bon ba faw parce que lii dafa am pour leer bu leerul rek day mel ni ki kon amul njëriñ nit di dunda amul njëriñ nit di nekk artiste amul njëriñ nit di doon li nga doon gom sa boppa parce que nit ki bu gomee boppam rek mooy yaa ngi wane li nga doon yaa ngi représenté sa dëkka yaa ngi représenté àddina yëpp parce que nit ki amul dara lu dul xajaane fi nga jóge te fi nga jóge mooy fan mooy sa dëkka mooy Afrique boo xajaanee sa dëkka ba pare dangay xajaane Afrique kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci deyu assis bi ak Wally parce que ñenn la ñoo xam ne dañu doon dem ñu kal leen gor seeni mhm. dog leen ñu daanu te bu ñu daanoo ñan ñoo leen war a ekkati ay doomu aadama ñi loon ñoo xam ne ñoo doon taxaw naan Aziz sama papa la Aziz bla bla ana ñu tey kenn gisu leen ñun tey Gambien yi dégg la waroon na ñoo taxaw di wax de mais ñoom ñoom ñoo ñoo féete woon wax bi ñu bari yaa ngi naan gambien yi lu ñu ci doon ah kay ñun duñu ci duñu ci slip de caaya la ñu ci yi la waaw te eh. ñun dañuy dem jusqu'au bout dañuy dem benn jeex fekk lii leerul duñu bàyyi man damaa meroon de ma ne dootuma dugaati mais am am na am na comme ku mel ni ki eh, Bébé Ndié ak am na sama beneen sœur eh, sama beneen sœur yam ñoo ma nekk rek naan ma déedéet dugal rek parce que man ku xam damay toppare rek ñu tapote ba zou zou beneen zou bi naan ma président de capote comprendre nga mais comme like léegi-léegi dañu ñun tam war a may ñuy wax ñu ñuy wàccee rafetul dëgg la waaw rafetul mais des day assis bi boole nañu ñun ñëpp ñun famille lañ famille lañ fi mu nekk nii kenn xamul kenn ñun xamantewuñu wuñu fii moo ñu boole ki ñu boole mooy lan ambassadeur te ambassadeur wax na ko mu ne live bi ñun ñoo ko moom moom ko de live bi suñu live la <laughs> te dañuy dem jusqu'au bout teeg mm-hmm. lii leerul duñu bàyyi oh, merci merci waaw toujours nag dañ fi nekk Mm-hmm. dinañu fi nekk dinañu ko xeex mm-hmm. dina ñu wax comme li ndeysaan suñu tonton boobu Baye Fall yal na yàlla ñoori fanam mu ne moom béy la day yuuxu waaye ñun ñu nekk ci live bi ñun ay béy lañu dañuy yuuxu ba ñëpp dégg suñu voix ñëpp dinañu dégg les autorités dinañu dégg ñëpp dinañu dégg dinañu yuuxu ba justice am maa ngi jégalu bu ma fi waxee dara lu ñaaw laay waxoo waaw kon ma emale ko fii parce que ami ami I think some some people they want to come. waa merci merci merci. merci thank you very much to you all. you're welcome allo. bye ami génne ma. d'accord maa ngi koy euh, Lia Ah, ah, ami li li bala ngay wax pardon dama bëgg a wàcc may ma ma am lu d'accord ok man yaa ngi maa fi de xaaral ma wàcc kon parce que dama non non non non kañ xara xar li yaa ngi wax li yaa wax même ndaw si sax man dama ko bàyyi mu wax si ok exactly ay nit bu ñu ñëwee di wax da ngay joxe respect rek non yow xam nañ la sax yow moom si kër gi nga bokk sax because yow ya, soo ñëwee ya, buñ la joxul parole sax da ngay iya. toog di xaar rek thank you léegi mun nga juste li may sensibiliser rek mooy bu ngeen di dem tempo tempo ngeen bañ a yàkkamti parce que lu lii du loo xam ne euh, dañ ko war a wax benn fan mu jeex benn fan xam nga télé enquête bi bu leen yaakaar ne mun na dem ba am daw fii ba un mu mun na dem ba yàgg pour ñu éclaircir li am parce que lii dafa metti àdduna bi yëpp man France laa nekk xam nga traumatiser ñëpp tax na ba tey ji xarit mënatoo ko am parce que da ngay ragal te ñoom Aziz dañ ko jaay ñi ko entouré dëmëree la jaale la moom comme moom defoon na alerte bu yàgg c'est juste nag ñu bari dañ ko ignoré woon xooluñu woon vidéo mi mais boo xoolee vidéo mi rek war nga si am jàngat bu baree baree bare xam ne kii dañ ko traumatisé woon xam nga mais comme moment boobu moom demoon na ba commencé fu muy fëlee xam nga ñu daal di góor ay tànkam mm-hmm. metti na trop parce que nit tey jii boo demee ba commencé fa nga waroon a euh, évoluer waroon a jàppale sa famille rek ñu ñëw yàq sa àdduna yàqaale xale bi nga xam ne il est à fleur de l'âge juddoogul sax loolu moo tax nit ñi koo nekk révolté wu affaire bi du pour du pour kenn du pour ñaar du pour ñett pour lépp population africaine bi yëpp la dañoo war a bàyyi yoon doxal liggéeyam ngeen bañ a di divulguer yenn yenn kii parce que après dañuy brouiller pouce yi même bu ngeen di wax da ngeen di codé wax ji comprendre nga. parce que am na mhm. ñoo xam ne ñu ngi ci suuf ñoom dañuy def seen faux compte di déglu comprendre moo tax doo leen def rek def leen ci très attention ngeen xam li ngeen di wax xam li ngeen di jëf. ba nga xam ne nii enquête bi dina gën a avancé te dina gën a leer te leer na ba pare parce que am na ñoo xam ne kenn du leen laal boo amee xol bu laab yàlla dalay jàppale Aziz xolam dafa set parce que da daan dimbali doomu aadama yépp ku mu gis def ko comme boppam xam nga mos gis vidéo am fu mu meree vidéo boo boo seetaan ci moom rek da ngay kontaan parce que day day reetaanloo doomu aadama yi bëgg lu baax mm-hmm. xam nga bëggoon a tekki ñu ñëw faagaagal ko nii xam nga loolu tamit neexul ci xol man man tey jii jooy naa sax ndax yaay ji laa gën a yëram ak sëram bii ku mu dalu rek daa fekk amoo famille metti na torop mhm. voilà metti na torop torop yàlla na ko yàlla yërëm te xaare leen àjjana fi daw si te incha allah lii dina feeñ léppay leer loi bi fi nekkoon ak léegi du benn ne vous inquiétez pas lépp dina leer fii même politique bi ñuy wax ak yëpp léppay leer parce que dañoo toll ci jamono révolution waaw léppay leer yàlla nañ leen yàlla defal jàmm ngeen continuer même lancé bi ngeen bañ yàkkamti loolu rek laa leen doon wax ma di leen jaajëfal yi thank you waaw jaajëf sa kàddu rafet na macha allah mm. ok jéggal bu baax kaane kaane ñëwal après ñu may kii ci suuf sœur mi mu wax. waaw man comme yow da nga Emi laa bëggoon wax dama ko bëggoon wax rek nay bàyyi xel des fois parce que gars yi dañ koy soxla ci suuf parce que je me ni am na yoo xam ne comme que léegi mënuñu ko wax ci kaw mieux vaut ñu di ko tapoter di ko wax ci suuf donc na ciy bàyyi xel bu baax parce que xam naa ni day xaw a jàpp nag di dégloo yooyu mais am na ci yoo xam di ci wax ci suuf daal di ci discuter entre nous. waaw d'accord parce que poser la question bu pertinente. mais daa mel ni sax lii mhm. merci Kani la am na lu ma la laaj nga ni ma wii mais bëgguma mu jëm si kaw ndax ma bëgg kooku ñu mbaalaat ko ñu fexe ba mu ñëwaat parce que am na loo xam ne da koo daw te war na ko leeral bon dinaa message dinaa ak je rappelle naa ko parce que am naa lu ma lu ma wax ci ok ok do that yep ok merci user Youssef yow mi si suuf taalal sa micro this is the wax wala ma bàyyi hmm. man la yow mën ngaa wax après nga may gaay comme ñi am na ñoo xam ne ñu ngi si suuf like voilà eh, ñu wax après hmm. uh-huh. waaw man dama doon wax rek ci ñi nga xamante ne di di di bëgg yéeg te du ñu am opportunité yéeg dañ koy paas da ngay gis ñu koy bind ci commentaire yi des fois da gis sax ku la jël PV di ko di ko di ko clamer man nag je me suis dit ne live dafa am nuñ koy defee tey boo jëlee ñaari modérateur teg leen ci kaw c'est pour que ñu gérer live bi mais bu fekkente ne dañuy ñëw rek toog noonu tamit du am sens nañuy bàyyi waale ñi nga xamante ne fekkente ne sax kenn ki day nekk hmm. ci euh, day day nekk ci euh, commentaire yi di ko bàyyi xel keneen ki nekk di xool demande yi loolu tamit dina si am solo ñu bañ a frustré ñenn ñi parce que dañ koy kaas beneen bi si euh, topp mooy bi topp mooy ki doon ñëw fii nii doon joxe ay information si kii Tarba Mbaye j'ai bien vérifié l'information parce que bi ñu ko waxee rek si saa ma dama dem ma laajte frère am bi mu ne ma non Tarba mu ngi nii ñoo nekk nii sax di reerandoo donc nañuy bàyyi xel tamit information yooyu noonu parce que tamit nañ nañ ko waxte de ñun suñu panel bii ay coomo nekku fi ba nga xamante ni da ñëw indi sa information xaw ma loo si jublu da ngay ñëw da ngay ñëw indi fi information pour ñu mën a wax ne waa ci panelu ambassadeur lañ ko waxee après comme ñu wili pandewaat ñu bëgg ñu mettre en mal avec mm-hmm. les tamit nañ ko bàyyi xel bu dee loolu nga ciy jublu wax koy def bu dee loolu lañ ciy jublu tamit nañu xam ne daluñu ci parce que fii ne ñi fi nekk

kilifa yooyu ba xam ñoom approché nañ leen depuis boobu ba léegi ou bien ba xam ñu leen di soutenir tamit wala loolu bëggoon naa ko laajte parce que nekkoon na lu nekk sama xel lu yàgg nekk sama xel ma bëggoon ci am ay leeral xaw ma nag ba xam leeral na ci ou bien. d'accord parce que Maguette Seck sax boo déggee fi mu waxee kilifa bi mu wax noonu dañoo am ay kilifa moo tax waxuñu kilifa bi mu wax noonu ñëpp xam nañ ban kilifa la parce que bi mu wàccee fii woon nañ ko téléphone. Mm. te kooku wane ko téléphone te kooku noonu Aida taxaw na fii wax lu leer nañ yónneewul fa ba tey wootewul sax masawu kenn te moom moo taxaw ne moo taxaw yónnee nit vocal ne ko man yónnee naa si kër googu noonu eh, sama samay samay samay samay soxna dem nañ fa la wax sama famille te man tamit maa ngi fay waaj pour dem fa ah, ba pare ne looloo comme ñii li ñuy wax nii kon fu mu fa dem nan laay def ndeke moom loolu yëpp dara amu ci kon dèjà war ngeen a xam ne am na loo xamante ni xew na ci biir loo xam ne moom mu ngi ci lu lëndëm ba pare nga yónnee ay nit naan la yéeg leen ci ay live avec ça lépp nga wax maanaam mag buy wax na na wax loo xamante ni parce que tey fii boo fi def lu ñaaw di ko def ba jàpp ne dootu du feeñ rek bés day jot mu feeñ boo fi waxul boo fi wax ay ay ay ay fen it di wax di wax ba jàpp ne du feeñ day jot mu feeñ kon dèjà am njaale nu mel nga mën a wax ne yónnee naa sama famille dem nañ fo te loolu amul loolu dafa ruslu quoi tombeek ñi nit ñi di wax ci yow loo xam ne maari dem si vraiment man daal mënatuma xam man ban façon ban ban ban façon àdduna daal lañ nekk man du ma wax léegi Sénégal àdduna laay wax quoi ok c'est malheureux noonu la demee man la xalaatu loolu dinañ ñëw ba dugg si oh, fii loolu mère Ramata mère Ramata aussi maa ngi gis ñu ngi euh, sànq indi nañ information mais mère Ramata moom dafa ne woon xaw ma laaj euh, dafa supprimer xaw ma tiktokam bi du mu ñëwee tey xaw ma dafa installé wala ma sais pas maa ngi ko dégg muy wax loolu mais mère Ramata dafay nekk di vérifier profilu nit yi man loolu moom ma jaaxal démb bu ma ñëwee fii ma indi information si Balla Ndiaye dafa automatiquement ba ma wàccee live bi dama gis mu dem vérifier si sama sama sama profil bi tey aussi c'était la même chose kon donc moom mu ngi si <laughs> live bi mi ngi suivre mi ngi déglu man du ma wax loo xamante ne amul barke Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moom rek laa yaakaar mère Ramata moo def lii tey ma gis ba mu yéegee ci live avant mu yéeg ci live bi vérifier na ma dem ba vérifier na ma ba mu wàccaatee tamit vérifier na ma mais Ramata tamit lu ñu wax dëgg la parce que kii nee na vérifier na tamit compte am day vérifier compte nit ñi. moo leen gën xam ne moom no mu Ramata man gis nga demu Aziz bi dama lay xamal ne la sama yaay sax du mu ko ci yërëm man li ma wax gars yi dafa leer man amul kenn ku ma yërëm ci demu Aziz bi nu ma demee yeah good zo na nga def yaa ngi si jàmm Firiman ça va ngi si jàmm yéen a si jàmm. Firman baal ma jël ma si ba sama beneen compte depuis treize heures may def demande kenn jël ma. maa ngi def maa ngi def dama wàcc sax pour jël nit ñi sànq dama. wàcc sa beneen compte bi nu mu tudd. man la bés bu sonko compte bi bëgguma di ko duggee moom laay. ah bés ah, moom laay ok exactement. sànq ba léegi maa ngi lay laaj. emi jël ko emi jël ko laa dugal. ok léegi wàccal mu jël la. waa mhm. vas-y léegi wàccal mu jël la. Kamu ngini sih kak. Kamu ngini sih kak. ok Seynabou Seynabou waxal. yow mos na fi. zo vas-y two times you know I think this day. Seynabou man maa ko yéegalaatoon mais depuis na wàcc moom parce que day ñëw du fay mikrom am te en même soo ko waxee waxal du wax euh, bokk na ci ñu jëfur quoi daa mëntu wax rek day yëg di signaler live bi mais live bi dañ ko sécuriser quoi ok maa nu nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax boobu ba tey ñu ngi seetaan laay lu am solo la depuis soixante-douze ñu ngi koy seetaan ñu ngi leen di déglu bu baax ñu ngi si suuf di leen déglu ñu ngi seetaan ñu ngi koy suivre tamit euh, si YouTube bi lu am solo la waaw loolu rek laa leen bëggoon a wax ñu ngi leen di déglu te ñu ngi leen di encourager bu baax merci beaucoup. Aminata Merci beaucoup. Merci, Fabien. Salam alaikum wa rahmatullah. Ziar na len yéen ni nek ci panel bi. Euh, dama len na xam lepp deug la. dama len ba doon beug qualifier beug len wowe wa panel xel bu sel, mais apparemment amna panel bu ko tudd ba pare kon nak dama len di wowe borom xol yu rafet man depuis bi live bi commencé di tourner en continu Mauritanien mu ngi fii ndekete dama len di suivre guddi ak euh mais amon na ben suggestion où je puisse me permettre ben conseil bu ma len bëgg jox euh, tay dans la journée ni suivre commentaire ils m'ont ils ont dû voir ma commenté né dañ fi sorti restons focus j'espère que ñu bëri gis nañ ko et si lolu lay ñeu insister parce que mbir bu lëndamee ba nit ñi di si xuus bay seen li tubab di wax le bout du tunnel da ngay nekk ci zone de turbulence yu bëri et on l'a vécu encore aujourd'hui la dernière fois c'était les larmes les douleurs de son excellence monsieur l'ambassadeur euh, Taï am nañu fi ben une heure voire deux heures de temps pour maintenir. on était en train de tourner en rond si loolu daal insisté insister pour que nous ñëpp ñu qu'on reste focus que l'on ne se laisse plus disperser nous bàyyi xel faire li

que quelqu'un d'autre avait déjà fait moi, que nous euh, devons résumer. résumé parce qu'il arrive que des fois nous ñi fi on est déconnecté on est déconnecté et à un moment donné on ne suit plus donc ce serait bien qu'il y ait des moments de résumé de round-up de l'actualité ñu lan lañ fi wax parce que nous devons déterminer davantage et plus clairement nous les la laa ne woon parce que aussi panelu ñëpp la ku si ne nga mëna a euh, impression ñu je vous remercie tous merci encore. merci merci la merci beaucoup et dañu ko ñu jël euh, ci conscience li nga wax euh, ñu def aussi merci Mbengue. salaamaaleykum mën na mën naa ñëwaat de. Ah? waaleykum salaam yu seeru. waaw waaw après yaram mu wax. waaw waaw yu user parce que defuma sama too parce que man li may dugg ci TikTok bi bariwul mais toujours depuis case bi bi ma commencé ba léegi every time maa koy focus daal di ko every time daf ma deful sama tour nag xam yu ni yu ni ma naw parce que uh, nekk nekkuma Sénégal maay outside fii mais maa ngi focus properly properly properly and li ma leen que ni eh, I'm so proud for everyone in this panel for everyone et surtout yow Zone billahi di la bégee di la bégee lu bari bari bari mention spéciale aussi à ambassade bi nga xam ne vraiment di open panel bi nit ñi ku nekk di ñuy indi sa xalaat que liggéey bi ñuy def am am proud of parce que ay nit moom lii rek la ñuy jariñante lii rek ñu mën a jariñante daal du xaalis du leneen jàppante nekk benn bokk ndey bokk bàyyi jërë jëf yéen ñëpp tout le temps nag gars yi yëpp nag maa ngi leen koy wax suma gars yi fan yi maa ngi pour ma xëy liggéey yi sax daanaka damay tardé fan yi yëpp kay depuis 15 mu commencé ba léegi muy xëy damay tardé waaw waaye nag jar na ko Aziz vraiment ak euh, rakam i tamit xam nga jabaatam vraiment ja ja jar nañ ko daal parce que nit àdduna boo ci nekkee daanaka jëf jëf lu baax rek boo jëfee lu baax jëf lu baax du mu sa saax du naax saay na olof di wax jëf lu baax du naax saay moo tax fu ñu toll mu ma koy sant sama bopp di ko delluwaat bépp doomu aadama dañuy def def nekk ak lu ñu nekk dañuy fexe di jëf jëf bu baax jëf bu baax rek moo ñu mën a sàmm di ñu yokk ñu nekk dañuy jëf lu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngeen jëf sama compte bi nag dama koo bàyyi use nii parce que bëgguma def sama taux maay euh, nekkuma Sénégal maay outside I am with my family moo tax naa nekk TikTok case bi daanaka moo tax moo commencé dugg TikTok daal waaw. yeah yeah sant sant naa leen sant naa leen sant naa leen lu bare bare bare bare bare tur bi Ismail la. thank you thank you man man ko tur bi Ismail la I am outside of Senegal I don't care about that but you know. You, you never know yeah. in the life. Well, I, I don't want to put anything with my. Uh, don't my, believe anyone. Don't believe anyone. Yeah, I, yeah, okay. no, I don't Thank believe you. anyone because the biggest problem is though all this time, from the time I am focus in this life, from that time, I am telling you, I don't know, don't know how many people is requesting me in mm-hmm. Facebook, in TikTok, like going inside my account and try to hook up me like a friend. I don't need any friend. My friend is my wife and my kids. That's it. Yeah. thank you very much for all all guys. Thank yeah. you. You're welcome, my brother. Thank you. All right. Thank you very much. Yeah. yaa baax maa jaajëf salaamaaleykum béti di daw réseau no problème maaleykum salaam maa ngi leen di ziar di rafetlu seen panel bi bu baax a baax da nekk ci suuf da ngay bëgg wax mais ñeneen ñi dañuy wax yëpp vraiment ndaxte sincèrement seen panel bi dafa mel ni dafa mel ni dëkk deewu Aziz bi ak euh, ak Wally dafa mel ni dëkk te seen panel bi di benn kër bu ci nekk war lijjanti dëkk bi ndax ci biir panel bi da ci gis danga ci gis ngor da nga ciy gis jom da ci gis détermination looloo waral tey. yaayu Aziz dugg ak sëram bi boobu ba tey ñu ngi ne duñu wax waaye defam loo xam ne lu ko yëngal rek moo koy ëpp doole maanaam tey gis nañ ne boobu ba tey yéen a ngi ci lii di ci sonn ñii di jooy ñii di ñàkk nelaw bi ma dalee dugg ci tiktok ba léegi maa ngi soog a gis live boo xam ne day def vingt quatre heures sur te loolu sincèrement détermination la donc lii ngeen di def nii yal na leen ko yàlla fay yal na leen ko yàlla fay ci fu ngeen ko foogul ndax en général ñun sénégalais dañuy wax naan lu ñëw ñu ne suñu yoon nekku si maanaam tey ku deelewul doo yëg doo xam lii métit am na ñoo xam dañ naan Aziz ak Waly du seen mbokk mais lii ñaar ñi ñun ñëpp suñu mbokk lañu ndax tey Zo maa ngi lay dégg ngay wax léegi lu am solo deret bi ñu laal dafa diis ndax ba xool ci diine mhm. fépp fu diine soxeeku dëgg-dëgg ci tukkuleer la ak pël am na ñoo xam ne seen mhm. deret dafa diis bu laalee suuf rekk do ñun sax ñu ñi nekk yéen di ngeen di def nii c'est très important ñeneen ñi nag ils sont inconscients ndaxte lii feeg leeru jàmm sax mënta am Sénégal xol bu set du am Sénégal ndax Aziz Dabala mii li ñu wax lépp ci moom kii góor piir la famille bi mu bokk ay góor dëgg dëgg dëgg lañu dafa di nag Sénégal bu fekkee yoroo alal du gis ñu la ngay dawal ci yenn oto yi duñ dañ yu baax yi duñu soxla loolu nitu yàlla dëgg yi duñu am lool lu ñu am dañ koy joxe ngeen jëm yàlla te yàlla ku ko nekkal mu nekkal la kii yàlla rek la doon nekk mhm. nit ñi nag gisuñu woon lu dul jëmmam ji rastaan bi ak tuba yi mu sol ak loolu waaye yàlla xoolul loolu yàlla fi mu dëkk mooy ci boroom xol bu yaa yàlla na ko yàlla xare àjjana moo xale bi di yéen lii ngeen di def yàlla na yàlla dëgëral te musal leen gis nga ay menaces yi may dégg yëpp amul solo yàlla ku ko nekkal mu nekkal la te yàlla moo leen di jàppale te moo leen di gàttal te moo leen di may ndam ndax lii ndam la yaayu Aziz duggul ci benn panel waaye li ko yëngal ba mu dugg ci panel bi da di dëgg la yëg dafa yëg ñu jàppale doomam dafa yëg ñu ko jooyle dëgg ndax ñi ko doon jooy la yëpp dañ doon def façon ñi ñëw ci dëj beeg ñi ñëw ci kii yeeg ñiy jooy ñoo ñëpp dañ doon fa def façon yéen ñi yéen a nekk di doxal dëgg te yal na leen yàlla fay dëgg bii ngeen di doxal dañu waxante dëgg tey ñi duggoon ñëpp ñu ngi rocceeku ñi naan ay menace ak mm. yéen yéen a gëm yàlla yéen a gëm li ngeen di def yéen yéen a li ngeen di def te li ngeen di def yàlla dina leen ci fekk si dëgg yàlla neen yàlla na leen yàlla sàmm jërëjëf. so much I yi moom xoolal fii moom ku wax rek nga joxe loxo vraiment. du góor du jigéen du waatim tapotas hmm. pour vraiment pour beneen compte bi na bi mooy bi ma def am bi ma ndax suñ compte bi moom léegi commentaire ndax compte bi léegi dafa bëri ay noon quoi léegi bi bëri na noon gars yaa ngi koy signaler gauche ak droite te xam nga TikTok moom tey sax boo gisee compte bi gars yi bàyyi koo signaler maanaam waatim tapotas ñu ngi leen di remercier bu baax a baax dañoo jékki-jékki rek en journée tapoti xam nga yóbbu ko deux millions et quelque looloo waral gars yi xam nga fi mu toll nii SDN mooy loolu mais mënuñu si dara macha allah. waaw casse de instant yi waaw lu xew non yow bul kaas bul kaas ami non dama rus samay sœur nag bitti rus torop mais damay kaas tey dëkk bi xew non yow bul kaas xoolal kër gi yaa man musuma kaas est-ce que may ambassadeur may ambassadeur da dindi sama modératrice No, no, no, no. Yang modérateur bi dang ko dindi da dara Hah? Né ko masade. Né ko masade. Man kay, man kay. man modérateur la te duma modératrice ambassadeur yow yaa bandi yow gis nga kagule ba léegi bàyyi woo ko dañ si laal dara yow bu suba ambassadeur dañ si laal dara bu suba kii xam naa ko depuis kagule yi fële noonu def nit ñi kagule yi waay waay bu leen def loolu waaye bu leen ko sëq sëqatoo ami yàlla ya, baax nah. waaw xaaral xaaral am sa am sa baa mi jàppale la man noppi naa de noppi naa la waaw gis ngeen nànk yàlla moom moo moo ne woon ambassade laxasal lépp ñu toog une semaine ba xam après moom leen leen ko ko loolu na xelal rek non non góor yàlla bi mu ko waxee loolu maa ngi fii ba muy lim ña mu fi bàyyi maa ngi fi woon ambassadeur daa wàcc tey def li muy def. déedéet beneen démb nekkoo fi woon démb ba koy ba koy wax nekkoo fi woon bitu loolu dégg naa ko tamit c'est vrai déggoon naa ko de. Eh, kii bi bi Bichou man gisuma woon xam nga dafa bëriwoon ay nit aussi Béchir ñu may jégalu nañ naa yàlla jégalu de te yow gis nu woon mais aussi mais aussi Béchir waa ñu waa ma ñeneen ñu bëgg wax problème aussi mais en plus nga yónnee ñu message nga nga def ko ci suñu tur loolu nañ ci ah nekkoon sama xel loolu laa bëggoon a wax après ma wàcc ma doon dem non problème du Thiès du Thiès du Thiès du Thiès seen kër la yéen seen kër la yéen ñëpp seen kër la ëppale wu ma leen fi dara yéen a ngi may dégg dafa nekk ci benn combat boo xam si nii suñ combat la ñun ñëpp te combat bi mooy la ma leen wax la wax ak leen waxaat tey Gambien jàpp nañ ci bu baax a baax baax a baax a baax si combat ñu nekk nii affaire yu bare bare bare bëri fii la génnee si live bi la génnee. affaire yu bëri fii la génnee secret yu bëri fii mais nag lépp nag maa ngi sant waa tim sama waa tim commentaire ak tapotage yi ñoom moom ñoo ñoom chaque instant dama leen sant leen gërëm waa tim commentaire moom chaque instant dama leen leen gërëm ndax ñoom wallahi azim dañuy live sax mënoon nañoo jaar di dem tëdd wàcc ñu fi mais duñ ko def dañuy nekk dañuy nekk dañuy nekk dañ fiy nekk di fii chaque instant dañ fi nekk dañ fi nekk di jàppale gaay yi ci xeex bi xam nga kon bu fekkoon ñun ñëpp ñun si dëkk loolu bi gis sax ay ñoom ay dax ndax ñoom xam nañu ñun lii ñuy xeex nii ñu Aziz Dabala ñu Aziz Dabala toog naan ñii mooy suñuy doom ñooñoo si waroon na ñëw pour xeex ñëw waroon a wàcc si si terrain bi ñooñu ñoo waroon a wàcc ci biir terrain bi di leen xamali carrément fii ni suñ panel bii mën nañ fee lijjanti sax Sénégal ndax xol yi ànd nañ xol yi ànd nañ booloo nañ wallahi azim te fii te fii ay borom xol yi set ñoo fi nekk fii ni ay borom xol yi set wecc wecc wecc wecc wecc ñoo fi nekk te yaakaar naa luñ songu rek gëm naan danañ ko daan xam nga sànq maa ngi leen wax naan leen ñëw leen ñu dem ndax am naa ci yaakaar nabulee di sax nabulee mën na wax zoo zoo man am na ni muy demee Nabou Leye lënd sax mën na mhm. kalaate dil bi yëpp déggoo ma de yàggutul de loolu kay maa ko wax mel ni moom soreetul non non soreetul soreetul soreetul quoi moom mooy li ma sakk instant rek mais nag bu liggéey bi see ba fii nii nag jàpp jàpp leen loolu lépp nag yéen la quoi yéen la quoi yéen yéen la lépp yéen la ndax ñu chaque instant yéen a ngi tappate yéen a ngi xool carrément écran bi ba xam ñu ngi bu heure bi ñu signalé yéen a ngi seen xaalis di di di envoyé seen i ok may may may mun sow may mun a sow lu muy lu muy am na lu muy wax you know because mu ngi seen ay number I xam nga ko. Maimouna loo a wax. Eva Monté attends je sais pas quoi faire. Maimouna a wax gis nañu yaa ngi ci. bu ñu wax xaw ma lan pour kii. Bichou Bichou maa ngi ñëwaat même tuuti rek mooy wàcc maa ngi ñëwaat ci yow. loolu la quoi léegi daal léegi daal léegi daal léegi daal mooy li leen wax rek. nañ nañ song rek nañ ko nañ song affaire bi àggale combat bi jeex na ba pare. waaw mu tegal ko caal. waaw Amy. salaamaaleykum. Amy xoolal jégalal Bichou. dinaa wàcce Freeman. Amy Mbengue. waaw lay fay. ok ok lay fay ma mun a Mbengue Mbengue madame Mbengue oh. Ah, Mbengue Mbengue kaay ñëwal. Eh, numéro boobu wala sa numéro de ah, ah may mun a. Mbengue. Mbengue comment on dit. waaw yow ñibbi <laughs> dama tëdd nelaw. <laughs> waaw demal may mun a. bisu mun na non non attends attends Ndour Ndour Ndour am sorry may mun a xaaral Ndour. Ndour yéen gul yéen ñi aboné gul aboné ñi aboné gul nañu aboné si page bii nii. yaa ngi abonné nañ ci ambassadeur. tëb tëb leer naa live live sama mi ngi wax léegi naan ñu gi ñun yow tam ah xëy sa panel de. ba ne pare lu ñëpp la sax. waaye tamit joué nga ci role boo xam ne tamit bu garaaw a garaaw li fi jot am nag man lool laa leen doon wax. ne li fi jot a amoon ba ñuy wax naan seytaane dugg naan dugg il faut cat yu mel nii bu amee il faut que ñuy ñuy kii ndax cat cat cat bi sax dafa baax ndax dafay tojal. dëgg la cat bi daf ci baax te loolu cat la. gis nga comme ni ñuy wax rek ñiy yéeg a ko wàcc ak a dugg ko menacé. ñoom mun bu ñu munoon ci ci ci ci nit ñi dara fii kon ba léegi paneel bi kenn doot doot dootu ko xalaat comme ni ñu def ci yeneen panel yi rek menacé leen ba kii waaye ñi nekk foofu ñi nekk fii nekkuñu foofu te yàlla lu mu def fenn rek il faut mu teg fa ñoo xam ne dañoo am fit ba mhm. pare zoo mii sànq dama yéeg gërëm ko zoo mii man dama koy dama panel bi dama cee yàgg di déglu ndax man ca doon naa déglu yeneen kii mais bi ma ñëwee fii romb leen ma toog déglu dama leen yàgg déglu may wax Zo mi dama koy yàgg teg inspecteur de police Zo mi te li mu wax te barki Rasulaay dama la wax kii inspecteur de police la ba pare day làqatu ndax li li muy wax boobu ba tey ca commencement ba ba léegi maa ngi koy déglu gis nga ndaw si génn léegi Euh, ki tudd faaf xaw lan ki doon wax euh, ndaw ndaw si génn sànq. waaw waaw kooku tamit ambassadeur soo ko munee xaw ma xam nga ko xaw ma xamoo ko mais su ngeen ko munee mbaal te gën koo téye mbaal ko téye ko fii lu bari dina feeñ balaa ñetti fan. chaque ndaw soosu ku ko booleeg zoo mii téye ko ci panel bi fii fii semaine prochaine. yëf yi dana gën a leer. parce que non wax la leen nag moo wax la leen nag chaque jour chaque jour déggante dégganteeg moom nag kooku kooku si tib la bokk kooku si tib la bokk chaque jour dañuy déggante. yii kooku déggoo li ma la man la moo moog zoo ci biir panel bi fii nii nii nii nii. ndoo ndoo si si si tataa la si tataa si biir xol la. man ah. man mom xam nga man damay deglu rek ba yag rek man nelaw man damay du ma yew fiñ ñu toll nii damay xaar parfois ay commentaire yu doy waar lay duggal damay xaar ni fajar gi ki sax moo tax ba heure bi ba heure bi may may may xolé ni mais mom tam waxna waxna lu ko limu limu limu mu li wax am na importance trop trop trop trop trop trop te wax tamit limu wax yëpp mu ngi nii ki nee na ambassade duggal sa compte bes mom la def ni grand écran sama compte bees moo nekk nii moo nekk grand écran bi si leen foofu noonu si laay si laay live suba moom laa grand écran bi waa ñëwal. te li mu wax yëpp Zo daf ko waxoon Zo mii am na leneen lu mu jenc loo xam. wait for man Zo man yow moom dama laa sànni sama carte yow yow yow mii Zo yow moom yow far maa ngi <laughs> thank you man mi ci yow rek laa far man yéen ñëpp laay toog yow ak góor yàlla moom dama far yéen complet góor yàlla sax bi bi bi kii duggee léegi ay da te fekk ko fi daf maa naqari gisoo ma ko may may may demandé góor yàlla góor yàlla góor yàlla yeah yeah waaw parce que moom tam loolu maa naxanteeg moom ba mu xaw a avancé sax tuuti parce que moom dafa xam nu muy nu muy nu muy cuqee nit te te yow di nga waxte doo ko tey moom loolu Ah. Hein. mais pourtant mais putain ouais mais tout Tundur pourtant elle a parlé de. il faut même même kii wax na ko même même Zo wax loo na ko. il faut nga am dégg-dégg pour comprendre non mais elle a très bien parlé. ak si en plus ña ñaar même même Zo sax puus na ci moom laaj na ko ay laaj ba ba ba mu wax moom. Mhm. am na yenn yoo xam ne yu xóotu xóot yi la mënul wax te on la comprend parce que am na yoo xam ne comme comme comme affaire baa ngi ci yoon te kii waguñu. am na yu bari yoo xam ne mënu ci wax ba pare moom elle s'est bien parlé man mais nag sama xol bi jooy naa ci sax sama turangoñ yu tuur na parce que seen yaay man dama am ci ñun trop mère bi dama am xam nga xam nga xam nga ma am lu ma leen leeralal ci ayda bi muy wax man am na foo xam ne tuur naa ay xéewal xëy na peut-être am na ñoo xam ne bàyyiwuñ ko xel mhm. mais Aïda dafa am bum wax ba ne am na question buñ ko posé waxul ci daf ko reeree bu ndaw si suuf ma ma jooy te boobu dañoo tudd benn xale bu jigéen waaw foofu dama foofu dama jooy parce que parce que gis nga kaay mo wax leen am na am na reetaan yoo xam ne ah, nekkul bànneex wala laal jëm douleur ah, xam ne am na wala exactly loolu laa sant am na ñoo xam ne suñu amee lu leen voilà am na ñoo xam suñu amee lu leen métti dëgg. non non non ñoo jooy daneen daneen reeree bu ndaw. te te dama seetlu benn affaire gis nga ndaw suñu téye na ma yàlla baal gis nga moom boo ko xoolee man dama seetlu ay vidéo yu bëree bari bari bari gis nga si sabar yi ci événement yi bu fekkee ne seetluwu leen ko li may wax nii bu kii fii ak suba ngeen seetluwaat ko gis nga dalay day ñëw ci ci ci kii bi. bu ñëwee ci feet bi day ree yow bu dendeeg yow dalay lay ree bu jàkkaarloog yow dalay lay ree même Aziz sax daf ko ko daan def seetlu leen li ma leen wax. gis nga bu la reetaanee ba nga ba mu mu mu am benn facha boo xam ne benn facha bu mu mhm. soxla. day catal bët loolu dama ko seetlu ci moom day catal bët bu mhm. bu mu neen mu soxor waaw kay da lay reetaan même ko ko daan def gis nga Aziz day kii ni mu ree bu Aziz kii mu catu ko man te am na ku fu ma benn benn panel bu ma mus la doon déglu ñu ne da ko daan wàññi fu Aziz waxee fu ñu toogee fu ñu toogee rek mu wàññi ko mais xam naa ne moom xolam setul dal, xolam setul yalla rek mo mo leral lepp mais mom mom xolam xam rek ci ay di nga xam xolam du du xol mais mais mais la la vidéo la ki bu mu euh, Aziz. gis sama sama ma ma j'ai eu j'ai eu trop peur même de voir la vidéo là. mais parce que man dama ko ragal man dama ne kii bu ma doon ànd ko man man bu ma ko xoolee benn yoon xool ko ñaari yoon dootuma ko jege te fu mu dem bu toogee fii ma toog fële elle un regard méchant am na nag een xaw ma lu tax mu amal nit ñi een te dama seetaan bi maa ngi ko fi doon wax ba keroog ma ne dama seetaan benn vidéo mu ne moom bi mu amee 15 ans la am doom papaam fi ko fekk rek ma ne kii kon dafa dafa dafa dafa soxor xëy na xëy na jaar-jaar dem ba nekk mag affaire boobu def la nga soxor que li daf lay daf lay rendre nga nga ba pare am am jalousie envers. les autres personnes xëy na nag loolu la mais am na moom ci moom loo xam ne haine boo xam ne xam naa ni moom xawma lu tax mu am haine boobu mais def ko am ak ñëpp boo seetee vidéo yëpp am na ci regard boobu ma lay wax ak ah, ku nekk def na la ko def na ko ay nit yu bari def na ko ay nit yu bari moom elle est capable de tout faire man ci ni ma ko gisee bokk ki boo xamee ni tuuti culturellement boo xamee ni parce que bu fekkee ne benn nit rek la koy def su fekkee ne benn nit rek la ko doon def sax nga mun a wax mais mais mais mais moom boo seetee vidéo mi képp ku mu tà ku mu dendal rek ba reetaan la après boo tourné regard boobu dala koy def parce que def na ko ñëpp ay xaritam ñi muy àndal yëpp def na leen ko daanaka bay boo bay boo na gars yi commencé jël seen jëmbe yi commencé koo jaay de jëmbe yeeg sawar <laughs> comme bu fekkee ñëpp enregistré ñu may ñu may kii ñu may samba samba tamit ak samba samba samba di ngeen gis ay water non water mu ngi fi moom na bàyyi samba mu wax après xam samba su am ñeneen ñu dugg man di iya, iya, iya. ya, gis eh, water mu kaw ay gént yoo xam si ni ay ay lañ koy def di di day ay ay ay kéebu bi laal wala dëkk bi bi fii Samba waam Samba Samba wala yow da ngaa nalaw ci sa téléphone bi mais bi xaar open la sa mic bi Samba man léegi xam nga xam nga def zoo zoo kër kër laay wut gàmm bi kër. daw gàmm bëri morom de man ne am naa suma benn xarit maa ngi koy woo Serekunda la dëkk. gàmm bi ëpp jàmm sax gàmm bi ëpp jàmm de zoo. faaw ñu seeti gàmbe yi moom. ok water I know today yow moom danga danga busy. zoo may ma. may ma wax ngeen lu ma metti yow ambassadeur lu tax nga ne Gambi moo gën a kii fii yow Gambi ngi moo gën a metti Sénégal nga naan Gambi waaw yéen bu leen xeeb suñu senegal fii dafa am ñu bon rek waaye ñu baax ñaa ngi fii ba léegi oh, du ko nangu de man eh, man Sénégal rek laa bëgg. non da ko waxee ni. bu ma ko nangu man je suis sénégalais cent pour cent. Eh, dëkk bu tàkkee nit ñi dem dem dem dem ñu nañ nañ ñu baar rek. déedéet nekk di favoriser waa Gambie rek di favoriser ah, Gambie rek eh, ma ko nangu man bu ma demoon. Gambien yi suñuy doomu ndey la munoo ci nekkoon naa demoon naa nekkoon naa ba Maroc damaa damaa ne man damay ñibbi vacances rek doyal naa sëkk. man dëkk bu ma xamul xaw ma ko man je suis sénégalais 100 pour cent moo tax man bëgguma ko tuutal sama dëkk moom laa am. je suis may mun a. ok water. mani. No, Water. Water, I know today you, you're very late, man. maa droit dem dëkk yi dëkk yi gas Sénégal ay raykat nit a fa dëkk gas ay raykat nit ñoo fa nekk moom ma jaaxal de ay raykat nit dañoo fa nekk ay raykat nit nekk fa jàpp jàpp ayo même ne même ne même même a yegaat ambassadeur fu muy wàcci waat en fii la nekk même ne a wax de Béchou da nga fam loo a wax balaa may ma tuuti rek nee nag waa waxal waxal Fatimata yéegoon naa mais léegi ma bëggaat tamit laaj jo ngeen cëppee ma te man ma ma duggaat uh-huh. waa jo nee nga gaynde bu jigéen bi bu waxee euh, ay ndaanaan daanu daanu daanu ñun ñi bëgg ambiance dina namba namba ambiance yooyu ay mbër yu mag yi la ah. wala mbër yu tuuti yi doo doonu xoolil tuuti rek ñu bëgg a xam rek xam naa moom waaw ok ba nga pare mhm. thank you si sa laaj bi xam nga su ma gaynde bu jigéen bi su waxee lépp leer musique ambiance dinañ ko namu Sénégal loolu suma ko waxee loolu ci neuvième personne bi lay waxee gis nga neuvième personne bi buñ ko téyee moom dina leeral ay bunt yu bari yoo xam ne mu ngi doon daw Sénégal te bu ko leeralee dina bari ponkal yu bari Sénégal si seen ruq la ñuy toog képp seen képp seen tubay ba mu dëgër. xam naa la ñaa ngi dégg. Mm-hmm. kon foofu moo tax ma ne bis bu gaynde gu jigéen gi waxee. Mm-hmm. ambiance dinañ ko tam mu Sénégal. te gis nga neuvième personne bi bis buñ ko jàppee ba mhm. teg ko ci ba teg ko baar mhm. ah billaay da ngeen xam ne lu bëri amoon na Sénégal nekk dafa nëbb woon xanaa xamu leen ne dama mos a toog di wax ma ne leen enquête bi su ngeen moytul yeneen enquête dina ubbeeku waat ci biir enquête bi mais boobu gars yi bàyyiwuñ xel fan laay waxee parce que gars yi am na lu leen mos a réer lu ñuy toog loo xam ne lu Aziz dabalaa lii da koy feeñal te bu ngeen dégloo rek sànq ci ginnaaw amna ko mhm. mune, fi asis mune ne mbiru Aziz Dabala bi si lay senegal di continuer di bax ba faw wala si lay yakko ba faw est-ce que deng ngeen wax bobu non mhm. manam amna lu yag xew mhm. ci ci ci ci ci ci artistes yu nek bir senegal ay may deg bu bax lo xamne ni dafa yag xew lekante bi dafa yag Mm-hmm. ba pare gars yi ko ci biir rek muy dem rek di dem rek di dem rek. yaa loolu moo waral loolu moo mm-hmm. waral ma ne leen bés bu leeree ambiance dinañ ko namm Sénégal. mais mais maire bi sànq mu ne euh, neveu bi mu ngi kër ñoom Aziz luy loolu. Euh, gis nga kooku noonu. dafa waxta am na ñoo xam ne dégguñu waxam sax te gis ngeen kooku noonu li ko yégloo ci panel bi waxloo ko mm-hmm. barki Serigne Touba xamu leen rek mbir moo gis app bi am na fu ko yàlla yemale loo gis lu ne am na app am na fu mu yem te gis nga mbiru Aziz Dabala bi sila la doon leere te si la lépp di leere ba tey lu yàgg am Sénégal ci xoolal bañ ñi nga xam ne ay am na musiciens yoo xamante ni pourtant am na benn musique am na musiciens yoo xam ne dañu leen a téye ba tey génnaatuñ wéy mais ñu ngi dund de te xamoo ne loolu yi mën na feeñ fii est-ce que xam ngeen loolu. waaw parce que daa mel ni waa ji moom wàññiwu ni dégg lu ma la wax de kaay ma wax la benn affaire. Mhm. gis nga Aziz ki ko soxla mu bañ. Mhm. am na ñun soxla woon ñu bañ mu am fu mu jaar ñoom ba kenn déggaatu leen xam nga parfois damay bëgg di wax nag parfois damay dem ba bëgg a wax man maanaam su ngeen may poser question rek damay wax. yow kay dellu bul noppi boo noppee arrangé wunu del wax rek. Aziz ki ka soxla mu bañ am na ñu mu soxla woon ci Sénégal ñu bañ kenn déggaatu leen te fa mu ñoom a tax. mais bis booy def lu bon di ko def di ko def gis nga buñ ne diw sàcc bi dafa am galaaj déedéet wërsëgam lay jël dañ na xoolal sàcc yàkkamti wërsëg la est-ce may dégg mhm. sàcckat dëgg yàkkamti wërsëg la bis bu sa wërsëg jeexee rek kaso ngay fanaan mais gis nga booy def ñaawteef ñu naan dafa am gàllaaj koo liggéey jàpp ko ñu naan dafa am mistake ah billaahi bis boo laalee laala taake booba sa mystique réer la gis nga yàlla su la nammee rey garab gi la war a faj moom lay njëkk a rey moo waral da ngay gis ko feebar ñu yóbbu la hôpital nga lekk fa ay million te du la teree faatu mais bis boo def jëfi ñaawteef bés bi nga waree leer nga laal mën ngaa fere ay million ci sëriñ te mm. tulo tere dang moo tax de tey pip my brother si biir yàlla yàlla baax daanu nga yàlla na yàlla leeral lépp ba uh, pour ma ma wàcc uh, nit kii nii kii ndeysaan boo ko gisee rek da ngay gis leer ci kanamam donte xamunuñ ko bu baax mais ci vidéo yi rek lan ko gis lan ko xamee mais daa mel ni nit bi nga xam ni kenn wóolu ko woon laal daa ni waliw lañu laal ni ba ñépp di jëfru bii meer am 66 ans dugg ci live bi di wax ay ball di wax